jullit yëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ak i mbaaxam lañu dellu seete fii ci Safina TV di barab bu sell bi ñu duppee mawlana maam cheikh alhaaji Umar al Fuuti radiallahu taala anhu di seqatib jotaay lépp rekk dugg di dellu ci addiinu nasiha diine daal laayante biir la ni nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe di tàmbale nuyu booleeg ziyaar sunu kilifa gu baax gu tedd gi fii di imam El Hadji Thierno Ousmane Yero Bane di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mottalil ko ay yéeneem ñu bokk fekk lépp tetal ko jëriñoo ko njëriñ luy tàmbaleeg ñun fii ci àdduna ba kër yàlla subhaanahu wa taala yàlla nangul ko ko nangul nu ko ci daraja yonent bi alayhi wa wassalaam di nuyoo noonu it sunu directrice bu baax bi di madam Gange Adja Nyima Ba moom it di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mottalil ko yéeneem ci barab bii di yeege sunu ziyaar ba ca ku tedd ka boole ñépp yilif tey muy góor gu baax ga Mawlana Baay Cheikh Mouhamadul Bachir Muntaga Daha Cheikh Umar radiyallahu taala yàlla dolli ni ci moom wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dundule ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam yal nañu ko yàlla subhanahu wa taala boole nangulee noonu te mooy nangul koy ñaanam ci ñun waaye nangul nu it ñaan ci moom bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tuddee jotaay bi ci ni ñu koy waxee fan yi yépp sémb bi sémb nag mooy projet ñu tollu nag ci sémb lan la maanaa projet bi projet bi lan la lu tax nag ñu tudd ko sémb bi ak lu waral sémb bi mooy dama fee waxoon jublu woon ca wax ja lu mu ca jublu woon fàttalente delloo séente layentee ko biir ci képp kenn ku nekk ci ñun dellu ci sa bopp fatoo ko ci sa ruq mën a kan su ko defee nga déeg fa sa bopp déeg maanaam lu mel ni nga ñàkk fa sa bopp maanaa nga wéet fa ak sa bopp rek yàlla wéttali la dëglu fa sa bopp sa bopp wax ak yow nga déggee fa sa bopp ne ku laaj sa bopp déglu sa bopp sa bopp wax ak yow xamal la ca yooyu lay saa yow la kan su ko defee nga dégg xam xamee ca yit ni ku dul yàlla subhaanahu wa yaa ko gën a xam ci sa bopp nag ku noppee nax sa bopp say aajo faju ma tegaat ca waxaatee ca netti bu képp kenn di ku nekk ci ñun wéeteeg sa bopp ba déggal ca sa bopp xamal ca sa bopp yi la tere yëg ni juboo nga ak sa bopp ba mën ko juboo jeeg sunu boroom subhanahu wa taala nga fexe ba teqali ko yooya boo ca setee wecc ma setee ko ca na wecc ñeneen ñu meloon ni ñun setandoo ko ca wecc bu ñu bokkeendoo dëppoondoo ko cini ku mucc ci ñun juboo nga ak sa bopp ñu àndee teeko na boolee ndoo ko sunuy xol yi ba ku nekk yëgee ca teg ca xamee ca ni yaay sa moroom sa moroom di yow sunu jëmm yi nag gungeenu ko fekk xol yànd na ba nu mën koo muccee ca mbolo mu saful ma yàlla wala yaasu billah amna mbolo mo xamni saful yàlla yàlla ni yàlla musal ci momu le mbolo te moy mbolo ma seen jëm ya ànd seen xol ya wonante gannaaw yàlla subhanahu wa taala neena mbolo momu de moy mbolo mu ma saful تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى shatta su ko defee nag ñu ñun ñi nga xam ne ñoo boolee ni noonu nag sunu xol yi sunu jëmm yi gungeenu ko noonu ñu deenew ko ne nag di mbokk dëkmalandoo ko yàlla subhanahu wa taala jubloondoo ko ko ngir juboo jee koog moom subhanahu wa taala ma ni semb bi semb bi lii la te mooy projet bi mu tënku nag ci ñetti baat ñetti wax bu jëkk bi mooy maanaam buñ ko doon utal plan boo xam ne ci lay ñuy jaar ba mën koo liggéey ba mu sotti fa ñu koy tàmbalee mooy fii laa bëgg a jóge dem fële ku seet ba xam ni fi nga nekk baaxul nga am dogu dogu mooy jaasi joo xam ni foo ko dóor mu dog nga ànd ak dogu mel ni fii laa bëgg a jóge dem fële muy lu wér ci yow bi ko ñaareel mooy ñii laa bëgg a bàyyi fekk ñële kenn ku ci nekk nga seet ñi nga war a bàyyi ak ña nga war a fekki bi ko ñetteel mooy nee laa bëgg a meloo te bàyyi nii ñett yaa ngoog di ñett yoo xam ne benn bu ci nekk projet la ab semb la benn bu ci nekk semb la te mooy projet bi ku fexe nag ba déggee ci sa bopp ni fi nga nekk du fu baax fi waaye fexeel noo fa buddee ba dem fa gën xam nga ko dem fa di nañu ko indee ca sunu way wa rek fippu naa fiqu naa buddeeku ca neen ya lu ko mooy mooy la delsi naa yaa salaamu ma ku fexe it ba yéegee ci sa bopp ni ñi ngay fekki di bokk ak ñoomi mbir li ñu nekk gënul ndax du lu baax amal fullay foñ leen dëddu leen wan leen gannaaw fekk ña teguña ca yoon wa dëkk dëkkmal fa gën nga dabi leen def leeni ànd fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina su ko defee benn bu ci nekk rekk yitte ak dogu moomu nga xam ni moo gën a ñëw jaasi te foo doon mu dog mooy tax ñu mën a sottal sémb boobu de te mooy projet bi ku fexe itam ba xamee ci sa bopp ni ni nga mel baaxul ku laaj sa bopp sa bopp wax la fexel noo ca génn ba teqali koo caag melo ya di melo yu baaxul ya ame yittey nag fekki ña gën fexe ba dajale nag jikko ya gën nga takkaayoo leen su ko defee mbokk yi am di jàmm yi xarit yi may laaj ci fi waxtu yu tollook ñun nag li waral projet bi te mooy semb bi ku ma tane ci li xew maa ngi lay ñaan nga wax ma Mawlaay Ahmed yàlla na ko yàlla fayal xeet bi sëñ Cheikh nag waxoon na fi radiyallahu anhu ni penku ba sow ku la fi jaaxlewuma wax na la lu amul yàlla wàcce jaaxle ñëpp bokk ko mu gën fee neex a dégg lool nag ci fii jamono yi tolloog ñun may laaj ku jaaxlewul wax ma bokk man de jaxlana te bari ma ci morom bari na ci morom lol sax ci jax gi ba taxna xawma nax aduna bi dafa jaxasoom do xam xawma nax dafa taxawam mom aduna wala bok dafa jëm mom aduna ci tas tase nak ba toje ca mbooleem goxam ya te mooy goxi àdduna yi wet gu ne loolu muy lu mat di xalaat di mat di laaj fu ñu jëm li xew lan la fii waxtu yu tollook ñun dey mel na ni ci man ni àdduna bi la xar kanamam soppeeku كين كودل يالا نك سبحانه وتعالى خمو لي خولاندا دو خم دو خم ويا مولاي احمد يالا نكو يالا فايل خيت سجيدي با مولاي سيدي احمد تيجان سال مكتوب رضي الله تعالى عنه waxoon nañu ca njàngaleem yaag ñun noonu ah yàlla de subhanahu wa taala yàlla bu nu meram bert amin ndax nee na meram bu nu bettee dootul respecté ti délai waliyaasu billah man ci yàlla musal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam tegaat ca waxaan ni yàlla subhanahu wa nee na su ma meree aw nit man yàlla duma kuy gàddu yat di màttu di la xaar ba nga ëgsi ma ngàdd la yat wa ne yàlla nee na duma mere noonu nee na su ma meree aw nit moo xam aw xeet la ma mere leen wala moo xam am réew la ma mere leen wala moo xam sax muy àdduna bi ma mere leen waliyaasu billah nee na damay fexe rek ba la leen waroon teral tedd dil leen yal nañ ci yàlla musal ba far nee yàlla nee na noonu lay mere bu dee am am la danaa fexe ba am am ba tedd dil leen est-ce que ñu ñu fi yaakaar tey ci ñoom am am jaaxle wuñu est-ce que tedd di bu dee xam-xam la nee na dinaa fexe ba xam-xam ba tedd dil leen fa ñu yaakaare ci ñoom ni ñoo xam est-ce que tey jaaxle wuñu est-ce que jurul ci ñoom teddadi bu dee xay la te moy civilisation ma fexe ba civilisation ba di len ñi ñu yaakaaro lu ñu fi gën civilisé est-ce que tay jaxlé wuñu est-ce que jurul ci ñom ñoom di ba ci bu dee diine la sax néna su boba dina fexe ba diine je ja di len والعياذ بالله اللي خاو كان خمول لومو غي وارو دال لي كو نين ني واخي دا غي وارو فوفو لا وقت يي تولوك نين نينا سونو بوروم نينا نونو لاي ميري يلان وارون تيرال دال لاي فخه بامو تيد ديل لين waye duma koy gardo yat di xaar ku eksi yat wa dal dedet ma dégg it ci doomam ju baax jii di sëriñ Mouhamadul Habib si mu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum anhu mu wax ñett yoo xam ne jar na xalaat ni mu ko xalaate ba wax ko mu ñu daal ñett jaaxal na ma ci fi waxtu yu tollook ñun suñu Habib ay wax de bu sëñ Cheikh dëkk ci di faju di gën di wéradi dëkk ci ñaq. di di ñàkk dëkk ci jàng di gën di réer doy na waar muy nuroog ni ci gis-gisam woowule ñett yi yépp yu ñu waroon doon teral lañu ñett yi mu tudd yépp lu ñu waroon doon teral lañu faf deme ni tey daf ñoo teddadil waliyasu billah مولاي احمد يالنوك يالا فايل خيت بي سجدي با مولاي دي سيد شي احمد تيجان شي المكتوم رضي الله تعالى عنه وخاتون في جيملا واخ جي تي نون تي نانغاليم جي تي جوتاي يم يويغا خامني دارا لا مونيو فاي واخ توكيم با وون تي ليبان mune mu seqe won fab jotaay ak góoru yàlla gu mag gu baax gu ñuy wax cheikh al ajouz ca dëkk ba neena na fa ñu ne woon nag ca dëkk ba nee mu nga dal booleeg setaay ba dëkk baa nga set pecc mu ne booleek jaww jaa nga teej mu ne garab yaa nga naat nee piix mu neex nag ca na ko yaram di yége di ñu fay uppee سن شيخ نانا ما يسات لون نونا يا تفوفا نانا ما جيكي جيكي نيكو طاب البلد دك بيتاينا نانا موتونتوما نما لا يطيب البلد إنما يطيب الله في البلد معناه طاب الله في الجو انا موني ما شيخ دك دو تاج يالا سبحانه وتعالى موي تاج بير دك وني تاي جي يالا سبحانه وتعالى نك تاي تي دك بي ونكو مو تاي الجو جي بنغي يكتي teeyaay gu ni mel waaye dëkk du yàlla ay teey ci biir dëkk suñ cheikh nee na cheikh al ajuz moomu bañ a laata tàggoo sax waxtaan nañu waxtaan ba nee mujj na jël tarixa bi ci man may naa ko salaatul fatih mu di ko wert ci waxin woowule ñu déggee ci ni ni yàlla subhanahu wa taala di teeyee cib dëkk ba dëkk ba àndee konoog jawwam ba féppam àndandoo di teey noonu lam réew ba ci àdduna bi di nuy demee bu ñu booleetul yàlla subhanahu wa taala ci yëf ci sunu dundin ci sunu nekkin ci àdduna buñ ci booleetul yàlla ci lu mu caak bu mu ca teeyuk yàlla gi day làlli wala yaasu billah yaa nañu ci yàlla musal su làllee luy am fitnaa ki jaaxlee ki njàqare ki tiis ñoo fay wuutu ñuy dunde ci jamono ju ni mel seen bopp ubondoo du ñu gis bay xal di xam fu nuy jaar ak nu nuy def bay mën di muccee ci lu ni mel tepp dekk nak mbokk yi di doomi adama yi mam adama sunu domam yi ni man moy nit ñi ab dekk dal buñu ko dé tudd di wax dekk nit ñaa tax dé té moy ñako dekké jibril samba ngona mbay Rab Usman sen caatum bay ba ridwanullahi alayhi majma'in góor gi Usman yàlla na ko dolli leer moma ma ni boo nekkee cib dëkk nekkoon doo faak waa dëkk ba ni yow ñu gontoondoo ca dëkk ba ni ca àll ba lañuy ñuy fanaani yow nga ne duma fanaan àll ba tax laa fanaan yow rekk ca dëkk ba bu bët setee waatal wàcc ni yaa fanaan àll ndax nit ñuy dëkk bi <laughs> kon dëkk bi dëkk bi nit ñi réew mi réew mi nit ñi àdduna bi àdduna bi it nit ñi nit ñi ni man nag lay jéem a waxal ci fàttalanteeg delloo sente kook laayante biir ku ne soxla ko ku ne soxla ko ci sa moroom ma soxla ko ci yow nga soxla ko ci man ñu soxla ko ci ñeneen yàlla mottali nu ma ni nanu seet nu nu àndee gannaaw ba nu bokkandoo xalaat nu ku nekk delloo ci sa bopp ngir juboo koog sunu bopp booleeti ko noonu sunu bopp jubloondoo ko ca sunu borom subhanahu wa ta'ala boole mboolem yëf yi nag ñu boole leen delloo ko ko subhanahu wa ta'ala te di koy boole it ci yëf ba mu nangul nu ko subhanahu wa ta'ala may nu nag ci mbaaxam subhanahu wa ta'ala yëkk yëkk yu ñuy yëgloo ni subhanahu wa moom teey na ci biir yëf yi su ko defee yu teeyul yi di yu ñuy jànkoonteel yi ci biir yëf yi ba nar fee teeya dilee sunug dundee ndi fii ma yàlla donc subhanahu wa moo ñu ci mën a musal bu fekkee ni soxla nañ ko ba nu yégee ci ni mucc nañu ci te dara it mënu noo may lu nu mel di lu tukkee na ca moom subhanahu wa lu dul ni delloo nañu ko ca moom subhanahu wa te muy lu wér nag ci ñun mu mel ni rekk ni subhanahu wa taala mi ngi ni jàkkaarloog ñun ci lu wér sax melu ni dafa am mi ngi ni janoog ñun di ñu xaar ñu jublu ko jëmee ko ca moom fekk ko muy buur di boroom bu neex bee nekk dib jaamam ndax tedd nga am subhanahu wa taala may fàttali rekk ni subhanahu wa taala bëgg na juboo ak jaamam yi bëgg na juboo ak jaamam yi ñun kay lay niroog ni ci ñun li ëpp ci ñun bëgguñu juboo walla boog mbaadu àdduna bay bëgg a jeex ndaxkat lu ne ngi xew di deme nu ne lu ne ngi amit ñu ju koy firee nu ne ginnaaw na kenn xamul ku dul moom buur bi di borom bi maulana tabaraka wa taala nañuy fexe rek gën fee rawati ci tolluwaay yii waxtu yu tolluk ñun nu ñu wëlbatikoo ndoo jubloo ndoo ko ko jëmee ko ca moom subhanahu wa taala ngir delloo ko ca moom subhanahu wa taala te moo di rek ñu tuubandoo boole ca it melo ya di melo ya tuub laaj di melo di yay tax ya yàlla subhanahu wa taala gisee ci ñun ni soxla nañu mu jéggal nu te yitte woon nañu ñeewanteem ak yërmandeem di rekk ca na ko sunu maam ju tedd ja borom bone kaara ba maam sëñ Babacar Si radiyallahu anhu waxe woon ca woyom ba te léeg fu ma toll di ko fàttalee ko fàttaliwaat fa inna rahmata rabbi xiina natlubuha nan woon boroom luy lëkkook xemmeem ya ak càkku ya su fekkee ni bëgg nañu yàlla yërëm nu mais nañu melawoo lu yàlla di gisee ci ñun ni soxla nañu mu yërëm nu soxla nañu mu jéggal nu su ko defee dafay dal di bokk ca melo ya di melo yi nga war a melowoo ba yàlla gisee ci yow ni bëgg mu jéggal bëgg mu yërëme ku nekk tàmbalee ko ci say ay bi bopp doy la sëkki xalaat ngay dëkkee seet nag nooy def ba yàlla subhanahu wa taala jéggal la loolu doyna na xalaat saxee ko ne dakit ci fek saw làmmiñ ñongal ko ba du tarxis mukk di tuddu ayibi kumu say ayibi bop doy la yem rek ci fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu ñu yemloo ci wax te mooy wax yiw mbaa noppi ay ku ci yema woon nii kon day foo amee jotaay ak sunu boroom subhanahu wa taala loo ko fa ñaan mu may la ko fa ci mbaaxam ndeem soob na ko te yàlla na nuy boole di nangule noonu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee it mbokk yi di mbokk yi jullit yi lanu sunu maam ja waxoon ti maam Seydil Hadj Malick si alayhi ridal Malick waxinam ba ca xasalam ba ca nuuni ya alaa yaa daadu way xakki nabbi ini bi dikril baani tahtaanil uyuni ca ba di wax ak daadi ci noonu ca xasal ba de dem ca banaan wa kaana dëhru yarmina sihaman wa nahnu zawa bi bilxajuni maana mu ne toll woon nañ sax foo xam ne Magdaad ci tolluwaay boo xam ne yarmina daf ñu doon sànni moom jamono lu mu ñu doon sànni sihaman ay fetti ndee mu di ñu ko sànni mu di ma niroog waxin woowu ci fii waxtu yi tolloog ñun phénomène bii di coronavirus ñu ngi jàkkaarloog nit ñi di sànnee kay sànniwaat ay fetti yi ndeem muy deuxième vague yi ñuy tudd bay xal di xalaat troisième vague wala yaasu billahi yàlla mën a musale yàlla na musal ku dul yàlla fëri juwóor ji dingankami di càppaaculli subhanahu wa taala aji wéetoo ji nguuram jàlla zaatan wa sifaatin wa sumaatin moom dong nu mën a musal te ku mu musal subhanahu wa taala nga mucc ku mu ñoŋal subhanahu wa taala nga ñoŋ te it ku mu làq subhanahu wa taala nga raw mbokk yi di mbokk yi kay leen nu booloo booleendoo ko sunu jëmm yi tàppeendoo ko sunu xol yi dooneendoo ko di bokki neen ni nu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam digale kunu ibadallahi ixwaana doon leen di jaami yàlla di bokki neen yéenenteeku ne yiw yi di yiw yi sunu boroom subhanahu wa taala yi boppam su ko defee sunu jëmu doonee ko ni di benn te moo di famoom moom subhanahu wa ñu dëkk mëlandoo ko ko jubloondoo ko ko ngir mën ko rawalee ji sunu bopp subhanahu wa taala ca bu kenn di ku nekk ci ñun mën a yëgalee sa bopp ni yàlla subhanahu wa di teeyee ci yow ñu fexe loolu fexe ko noonu ba kenn ku ci nekk yëgal sa bopp ni yàlla subhanahu wa di teeyee ci sa jëmm ji ma ni nduuti maa mooy yoon wi nooti maa ngoog de ñu xam ni fii la nag te bu dul fii <clears throat> du doon di feneen ndax bu dul fa yàlla feneen amul wa fi dalik falyatanafasil mutanafisun nag bu kenn ku nekk nag yitte woolu ni mel fàggoo ko fi def ko muy semb ci la ñuy daje dëgg dëgg mbir mi te ci la ñuy dalee it ne ku daj dal kii dëkkee làmbaatu kay moo dajagul waaye ku daj dal ci googuleeg dal nag dég dal gu mel ca la ku ne di mën di yëgee ci sa bopp ni am nga buur bi jotaay di Mawlaana tabaraka wa مولاي أحمد yàlla na ko yàlla fayal xeet wi sajjidi ba mawlaaya di sayid cheikh ahmed tijan si al maktuumu radiallahu taala anhu nee na yëg ni am ngaak buur bi di mawlaana tabaraka wa taala jotaay yëg-yëg boobu nee na moo dàq aljanna yëg-yëg la du caagin da ngay toog nii janoog moom mu toog mais yëg-yëg la bu lay sësale ca moom subhanahu wa taala tegat ca neeti doyna di échec te moo di yonjox baatu yonjox sunu maam ju baax ca di bàyyam bu baax ba ca góoru yàlla googa ca bi yi leeri yàlla ya maam cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu taala anhu moo fire woon baat bi di yonjox ni mooy échec wala tanaza'u fatafshalu jullit yi bu leen di xëccoo kay noonoo kay wanante gannaaw bu ko defee rek bu ngeen defee loolu fatafshalu mu firee ko kon di ngeen yoon njox maam Abdou ni mooy échec di ngeen échec wa tazhaba riixukum te bu loolu amee rek seen fayda dem wala yaazu billah doomam ji di Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wax ni doy na di échec nag te moo di doyee na ji cig jox di dund ba xëy wuy ju sunu borom subhanahu wa taala te masuloo yëge benn yoon foo amee jotaay ak sunu borom amee jotaay ak sunu borom yëg ci lu wér ni am nga ak yàlla subhanahu wa taala jotaay Cheikh Tidiane si nee na moo dàq aljanna radiyallahu taala su ko defee mbokk yi di mbokki jullit yi laayee biir baa gi ñu bokk ko dama koy soxla keneen di ko soxla ñu war koy soxla delloo ko ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne addiinu nasiha diine day laayante biir la moom ngay dégg ca saar wa di ko ca yégee gannaaw aoudu billahi min alcheitan arrajim bismillahi arrahmani irrahim wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu lsalihati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabr giñ naa ko ci tàkkusaan ñu koy firee noonu man yàlla maa ngi giñ ci tàkkusaan ni doomu aadama perte na lu dul illa alladina amanu wa amilu saalihaati suuf ña gëm ba noppi di tofal ci seen ngëm googa di ca boole jëf ay jëf yu yiw yu baax du ñu tendeefal fa suñu yéene foowe dara ci seen dund te watawaasaw bi xaq ñu ngay dénkonte di waxante dëgg watawaasaw bi sabr ñu ngay dénkonte di diggalante muñ كنا التواصل بالحق وتواصل بالصبر نتاغو تاغو بدول تاغو ان شاء الله تعالى بدل سوات الجم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته